alors Tahirou vous allez peut-être revenir ci 30 secondes parce que yaa ngi ko doon wax tout à l'heure euh, par rapport ak euh, commissaire lu mu doon wax euh, sur cette histoire de de mondialisation mais après ça en 30 secondes rek revenir également sur le procès je pense que ñu ngi ko doon wax tout à l'heure euh, ñu ngi dem ci beneen étape mooy étape boo xamante ne peut-être yenn partie interjeté nañ appel est-ce que euh, ça veut dire quoi concrètement que li ñu doon xaar daan li doon xaar amuñu ko moom moo tax ñu interjeté interjeté lii di appel Bon, déjà pour s'expliquer sur euh, différence entre ordre mondial ak mondialisation dadul benn ordu mondial ay comité de puissance yu dajale mhm. bëgg toujours tënk Afrique maanaam c'est une nouvelle euh, mode de nous coloniser en fait maanaam diriger suñu président yi euh, ba pare dugal ko ci suñu dëkk de sorte que tubaab yi dañuy continuer di am doole ci ñun di am droit ci te loolu maanaam baaxul. pour ñu ko comprendre mondialisation mooy maanaam ubbi sa dëkk ci yeneen dëkk yi effectivement mais ubbi sa dëkk dañu war a xam ne ubbi sa dëkk terewu nga contrôler sa dëkk lan moo tax tubaab bi jógee Europe ñëw Afrique ñu koy wooy expat alors que su africain bi demee Europe ñu koy wooy immigré lan mooy lan loolu ban yoon la nekk tubaab bi su ñëw Sénégal soxlawul visa ñun suñuy dem seen dëkk dañu soxla visa loolu du yoon cest à ñoo war a am benn fulla boo xam dañu war a mën a gérer suñu dëkk ba pare am wa wal ko ci loo xam day indi économie ñu koy wooy épargne nationale épargne nationale tubaab bi dañu koy dund seen dëkk mm-hmm. immigré yi fee seen dëkk yëpp dañuy générer ce qu'on appelle une épargne nationale dañuy fay titre de séjour dañuy fay taxe dañuy fay impôt donc loolu dafa jot mu am Sénégal ñu def ko Sénégal pour que suñu doomi réew yi am chance u liggéey liggéey ñàkkul ci dëkk bi dafa fekk ne maanaam doomu réew mi dañoo jiitul ci liggéey bi ay doomu étranger ñoo si si ñoo si te loolu xëj na neexul ci yenn nopp yi mais dëgg la maintenant nag pour ci question bi ci justice sénégalaise Sénégal amul justice Sénégal du dëkk justice te loolu du fautu Macky Sall maanaam système bi la système bi mooy dañoo tënk ci ñaari idéologie yoo xam ne benn baaxu ci muy libéralisme ak socialisme libéralisme Sénégal du dëkk justice amul justice c'est trop fort comme mot quand mais amul justice. parce que y a des magistrats intègres yu nekk ci dëkk bi. des hommes des magistrats. tey bu nit ñi di tëdd di nelaw c'est parce que am na yoon bu nekk ci dëkk bi. non dafa la su ñu ñu di tëdd si nelaw loolu maanaam c'est les jàmbaar maanaam c'est les hommes de sécurité du pays bokkul ak justice Sénégal. mais monsieur kooru magistrat kooru magistrat ak kooru armée c'est totalement différent il faut faire la différence de ça. absolument maintenant dama lay expliquer benn affaire. mais sur quoi on se base pour dire que Sénégal amul justice. Sénégal amul justice parce que maanaam mënoo fekk juge boo xam ne en plein procès nga koy changer loolu du justice Sénégal amul fenn ci dëkk c'est le juge qui a waxuma ci bi waxoo ci waxuma ci cas bi ban ban cas moo jiitu loolu. procureur Alioune wax. non bëri na si. il dépend di changer ay assesseurs en plein en plein procès di leen di leen muter dans des pour des punis pour des maanaam euh, mutation punitive loolu ban justice la am cest xam nga fii ñun ñu fi toog ñëpp yàlla xam na ne xam nañ ne Sénégal justice bi dañ ko manipuler. nañ ko waxte dee rek jarul ñi koy laam-laamee di nice nice et tout journaliste bu lay poser question xam na la réponse déjà fu ma doon jëm mooy que Sénégal euh, idéologie ko tënk moo bon socialisme moo ñu yor pendant 40 ans gëm gëmloo ñu ne maanaam làkk français kese mooy doxal dëkk bi mooy tax nga tekki mooy tax ñu respecté la ku ko làkkul tekki woo dara ñu jóge si appauvrir dëkk bi tënk ko si ñàkk ba nga xam ne dañoo obligé chaque fois su dëkk bi tàngee ñu jënd ay meew jënd ay ceeb jënd ay diwlin séddale ko askan bi woo RTS loolooy socialisme libéralisme moo waral ku nekk def lu la neex waxee nu mu la neexee jaayee nu mu la neexee moo tax xaru tabaski di jar par exemple bu war a jar 30 000 jar 100 000 wala 110 000 loolu du yoon dëkk dafa am lu ñuy wax maanaam PC exemple juste si xaru tabaski bi rek lan mooy lan moo tax xaru tabaski war a mën a jar cent mille ba un million ba deux millions lu tax ci dëkk boo xam ne ñëpp a pauvre alors que dëkk yu tekki yëpp dañuy peese xar dañuy peese yàpp peese mi ngi ci alxuraan mi ngi ci bible lu tax mënuñ ko appliquer ñun Sénégal te ñu woote ñu dëkku diina lañ donc loolu yëpp moo njëkk maanaam faagaagal suñu suñu justice su dëkk nga jóge ci am président boo xam ne dafa am tous les pouvoirs day tënk législatif assemblée nationale day tënk maanaam juge yi day tënk conseil constitutionnel day tënk ñëpp soxla lenn maanaam les courtisans maanaam mooy ministre bu koy maral directeur bu koy maral ñuy toog ci tër bi di mar pour après am lu ñu def seen poche loolu nag le mouvement national sénégalais di xeex dañoo bëgg éliminer le système système bi nekk Sénégal moo bon président bu fi ñëw bu fi ñëw fekk fi système bi bëgg ko gouverner day gën a bon Macky Sall c'est pas sa personne ñun amuñu combat contre Macky ni contre Wade ni contre kenn on a un combat contre le système système bi nekk Sénégal moo bon système bi moo waral léegi da ngay xool débat bi ay pa ñooy toog ak ay jeunes ñooy toog di werante te génération yi du benn loolu lépp système bi la te dañ ko war a dégager loolu kese soo beneen question ma jël le débat public le débat public waru waru waru poser problème mag ak xale toog aussi. non j'ai pas non j'ai pas dit ça non non non non j'ai pas dit ça je dis que y a certains courtisans qui courent les plateaux di bokk ak ñu jotaay di défendre système bi pour seen propre intérêt c'est ce que je dis et je l'assume mais accusé wu ma kenn dafa nekk dafa nekk un constat su la neexee nga xool tous les vendredis dans tous les plateaux tu le vois constat kese la te loolu yëpp maanaam ci système bi la bokk moo tax ma yokk ko ci. alors pour pour continuer ci ci procès bi euh, au moment où euh, am na ñaar muy le parquet ak l'intéressé lui-même. qui s'est réjoui d'abord du verdict et puis mu dem euh, interjeté waat appel ci li nga xam ne moom la annoncé ci conférence de presse sans que peut-être li ma doon wax commissaire Keita est-ce que jaar na ko bien sûr politiquement puisque nga def appel. loolu c'est l'ordre normal des choses dans une procédure quand ci lu jëm ci wàllu ko yoon que dañ la tegal ay ay ay yoo war a def war nga mën a def appel mais yow également est-ce que politiquement jaroon na ñuy indiwaat affaire bi jugé waat ko puisque joxe nañu verdict bu njëkk ba pare non parce que dañoo bëgg juste dépouiller Ousmane Sonko xam nga seen verdict bi nii c'est juste politique en fait parce que avant Ousmane Sonko am na manne financière Copar Express jox na presque 330 et tout léegi loolu léegi la bëgg a wàññi mais du leneen c'est c'est juste cela maintenant nag ku bañ ne politique la loolu peut-être la rek mais disons que on est dans devant un procès politique c'est-à-dire homme politique moo demee noo xam ne chaque fois qu'il a na ci wàll mais la plupart du temps politique la te ku xam xam ne Ousmane Sonko lu ñu koy technique yépp maanaam pour éliminer ko la loolu kese la du leneen bu fekkoon nekkul candidat instant bi lii yëpp du am ci Sénégal mais parce que dafa bëgg nekk candidat et il a le droit d'être candidat te dafa war a nekk candidat donc voilà mais Tahirou un leader politique def ay accusations euh, teg ko ci ndoddu keneen koo xamante ne également il est politique. il n'a pas fait d'accusation dafa répéter lu ministre yi wax Mame Mbaye Niang moo toog ci plateau. mu ne que moom moo demandé rapport da ngeen di génne aussi fi archives parce que mënuñu toog di werante te dëgg bi nekk fi vidéo yi nekk fi Mame Mbaye moo toog ne. que moom moo demandé rapport Amadou Ba moo toog ne Mame Mbaye da ko woo ne ko dama bëgg maanaam ñu audité ma pas de révélation des accusations non non non non mais mais c'est ça c'est dans la c'est dans la même tournure loolu la dama benn affaire dama lay jox deux deux commis d'état ñoo xam ne ñoom ñoo toog ñu ne rapport am na Mame Mbaye Niang comment le fait que étant ministre toog ne man maa wax ne rapport am na Mame Mbaye moo ko wax moo ko wax ou pas on d'accord Mame Mbaye Niang moo ne rapport am na amadu Ba moo toog nee na Mame Mbaye moo ko wane ko dama bëgg ñu auditer ma rapport am na mais léegi lan ak lan la ñu bëgg teg Ousmane Sonko mais du dara donc ça veut dire que procès bi c'est politique juge yi suñu xooloon vidéo Mame Mbaye xool vidéo Amadou Ba nañ xam ne lii jarul egg procès dañu waxante dëgg rek te yàlla tax te yow mënoo woon contribuer pour apaiser situation bi leeral mbiri indi vidéo yooyu politique man posture politique la am je suis un homme politique je dirige un mouvement nationaliste donc ça veut dire que dama nekk dans la logique d'opposition nekkuma fii di défendre la personne d'Ousmane Sonko damay défendre la logique politique xam nga logique politique bi mooy que on a une justice manipulée on a un candidat qu'on veut abattre et je suis contre ça et je pour ça. le commissaire partage cette position? m'installer dans le débat hein euh, j'aurais aimé mu am niveau moo tax ma duggee fi ma duggee tout à su ñuy wax ci Sénégal pour que ñu jëriñ askan bi il faut ñu yëkkati sunu ay analyse parce que quelquefois nit dafay wax doo sax mën tontu pourquoi